kuréel ki yore wàllu artisanat ci mairie bu Touba maanaam di saytu ak a taxawu mbooleem xeeti liggéey nekk amal nañu jéego yu nemmeeku yu am solo ci àllarba ji juróom-ñetti fan ci weeru juin atum 2022 ngir soqali bànqaas boobile ci njiitu sëriñ Fallou Fall Mbawoor bokk ci kenn ci ñi nga xam ne dañ leen a toftal ci maire bi waaye nag jiite commission artisanale ci commune bu Touba gën naa dikkat nu mu gën a yaatoo ci jéego yi lee waaw maanaam dafa fekk ni li wolof di wax ni moom docteur bala laa faj dalay xam li la dal eh, ñun dañu euh, bees ci commune bi eh, commission bet commission bu bees la boo xam ni eh, ñu ngi ko fi door sos kon laaj na bala ñoo mm, xam fu ñuy teg suñu tànk ñu woo ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci secteur bi muy artisan yi ànd ak ñoom ñu woo ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci chambre de métier ku demee ne sëñ Wade ñoom sëñ Aale eh, sëñ Ibrahima Kami kon ànd ak ñoom eh, pour seet ci barab bi nga xam ni eh, mooy barab bi ñu leen njëkk jox nga xam ne leen ko jagleel jagleel artisan yi ñu ñëwoon fi nag di namiku di xool ndax biñ ko fi defee yàgg na am na lu fi yàqu ñu xool defaraat bi lan moo ci war waaye seet ci ban secteur lañ koy attribuer ndax dama jàpp ni dëkk bu mel ne Touba. Euh, Nous am ay zone artisanale yu bare bare bare parce que dafa wara dak euh, di dans la précarité du am place où xamni dañ fay sax ci yi la ci buntu exercer euh, métier bi nga la première étape la de xamni dañuy ñëw nemi ko ba xam lan lañ pour euh, euh, ci euh, mu nekk njaalbeen ci liggéeyu délocalisation artisanat yi ak seen réinstallation waaw kon loolu moom moo doon tànk yi mu ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñëpp ay artisan lañ di ay techniciens ku demee ne si Ibrahima moom itam yàgg lool ci mairie bi boole si kon ñu ñëw nemmiku xool lan lañ soxla Euh, ci barab bi tàmbalee ko fi ci liggéey ak it euh, defaraat bi fi war euh, lan lay lan lañ lan lañ ci yitewoo bu ko defee ni nu ko monsieur le maire santé ñu defar rapport bi jébbal ko ko boobaa nag moom mooy mooy seet nu mu nu bëgg mu doxee na liggéey bu am solo bi mu ànd ci ak ñenn ci ñi nga xam ne ni ñoom la ko séqal moo xam ñuy yëngu ci wàllum métier ci Touba wala waa chambre de métier buñ sukkandikoo ci ay kàddoom nee na dina dinañ taxawu mboolem xeeti métier yi gën leen a tàggat ba liggéey bu am solo bi ak na li ñu leen nalal ñu fas ci jariñu ñëk nañ def ay réunion yu bari yo xamni def nañ tour d'horizon euh, de toutes les problématiques euh, liées et donc à, à, à l'artisanat euh, dans la ville euh, commune de Touba notamment euh, seet nañu ni dëkk bi bari na ay professionnels ñuy defar yëngatu ci wàllu gone nag wàllu goo xalaat ñu ngi ci wàllu cordonnerie wàllu euh, confection wàllu wàllu mécanique wàllu gune ay spécialistes ñoo fi nekk yoo xam ni e, amuñu ci wàllu xam-xam lu ñuy ñee kenn waaye loo gis rek organisation la laaj parce que euh, wax naa la sànq ne la commission artisanat amagul woon ci commune Touba ren lañ ko fi door a def ndax gis nañ ni e, lu ko fi ëpp njëriñ amul parce que Touba amul à le commerce beneen activité amu fi lu dul sëñ mbay mi rek mi ngi may wax ni ma léegi euh, euh, artisan euh, groupement tailleur yi rek am na 4000 adhérents te jeexut sëriñ ñas mi nga xam ne mécanicien la nee ma am na 2000 et cetera et cetera boo buñ sukkandikoo ba tey ci ay kàddoom wax ne na kët ngir gën koo yaatal ci biir réew mi ba bitim réew danañ taxawal ay ndaje maanaam ay foire fii ci biir réew mi ba bitim réew waaye méngale ko ak doxalin ak wormaay bu di Touba. au moins 50 000 wala 100 000 artisans wala wala 150 000 artisans il ngi Touba. y a 128 corps de métiers 24 corps de métiers présents dans présent nañ ci Touba te liggéey bi ñuy liggéey liggéey la xëy na euh, boo demee Dakar wala nga dem foo mën dem da nga fa gis seen i produit ko xam donc à ce titre on nañ aussi di organiser ay euh, régionales Euh, régional hein, ay euh, également euh, ci Touba parce que Touba dëkk la que xam ne dafa euh, vitrine dans tous les domaines ni mu nekkee euh, deuxième ville euh, du Sénégal mm, ci wàllu économique wàllu économique bu ñu koy dee wax artisans yi ñoo tax sur le plan économique donc nekk ko ci sur le plan religieux mu nekk première ville du Sénégal dafa war rayonner ci ci domaine bu ne te conseil municipal bii bees bi ñu sës ci njiital Abdoulaye Ka jël nañ ko conscience nañ Euh, mettre tout en tout mettre en œuvre pour pour réaliser ko noonu ñu ko bëggee incha allah. ci turu Ibrahima Ka bokk ci kuréel gii di ASAPA ci seen teewaay fësal nañ seen mbégte bu baax a baax ci jéego yu bees yi nga xam ne nii commune bu Touba def na ko. may jël kàddu di wax ci turu ASAPA. ASAPA muy kuréel boo xam ne Serigne di Mokhtar moo joxe woon tur yi di Safinatul Amaan mboolem corps de métier yi nga xamante ne tey ñu ngi yeewoo ci Touba ñu ngi ci biir. tey ñu amaat fierté am mbégte am kontante ndax ñun dañu musta am commission ci biir commune Touba kon dañuy sant monsieur le maire ndax tey ji initiative bi mu jël ba créer un commission xam na ne tey ji artisanat kenn mënut a dem ci Touba sans artisanat ndax cent vingt corps de métier ñi ngi fi yoo xam ne seen tey lépp dafa tëddoon di nelaw am na ko ko fi wax léegi boo jógee doo xam koy waxal kon bu jëkkatee nag suñu sang bii di Serigne Fallou mu Serigne bu Serigne Aliou Fall mu doon koo xam ne ku dëkk bi yàgg a dafa yàgg intérêt wu ci dëkk bi bu buñ ko tànnee boole kook ñun dañ ci am fierté am ci cawarte li nag di département bu bees boo xam ne ni ñu ngi koy door a amal ci commune bu Touba ci fàttali rek di commission artisanale Serigne Fallou Fall Mbawor jiite ko te képp nemmeeku bii nag dal na xel bu baax a baax ci mboolem ñi nga xam ne dañoo yor ay métier ci dëkk bu tedd bi di Touba ngir nag mën leen a jàppale ci anam yépp ba jafe yi nga xam ne ni ñu ngi ko doon jànkonteel ñu mën a tàggoog moom.